combat bu dara neex dox ci diggante Petit Lo ak Sokh 2 ndaysaan combat la boo xamante ni ñoom ñaar ku ci am ndam am na lu mu mën a def ci sa carrière ñoom ñaari xale yi la

mbokk yi bee ngi noonu di wax ak ñaari mbëri dox ci diggante Sokh 2 ak Petit Lo Sokh jóge Pikine magam di soq indi ko kii di doomu Modou Lo le roi des arènes arbitre bi sifflé na mbokk yi combat bi dox ci diggante soq 2 ak Petit Lo Petit Lo moo la woon ginnaaw wala moo la féete soq moo la féete càmmoñ moom nga jàkkaarloo Petit Lo cokkaas na Petit Lo ak soq mu doxaat ci diggante dër bi ba tey parcelle ak pikin gis naa fi sama papa Zil Balde mu indi daw na jëli ko Petit Lo jëli na ko Petit Lo ma ngay tante soq bañ na plaqué na ko bañ na nañ bëre ñoom ñaar ma ngay dóor soq ngay dóor soq ngay dóor Sokh moo xaw a socc poids est-ce moo sàcc doole dinañ xool Petit Lo ngay tante ma ngay tante action attention Sokh Petit Lo ñoom ñaar ñu ngi noonu ndaysaan ndam li fan la jëm Pikine wala Parcelles Petit Lo Sokh jàppante nañ ba tey ndaysaan jàppante nañ ba booy xool na ci wàllu poids soq moo xaw a ëpp volume ndaysaan ñoom ñaar Petit ngay tante soq bañ na ndaysaan jongale na ko daan na ko walla deet soq daan na wala deet lu xew Petit Lo daan na walla deet ku daan ar bi lu muy wax arbitre bi lu muy wax arbitre bi lu muy wax bu ne waat leen jaadu na jaadu na jaadu na arbitre waat na ñaari xale yaa ngay bëre soq Petit Lo Petit Lo cokkaat saat na ndeysaan ñoom ñaara ngi noonu bëre xale la daw na jëli ko daan na ko daan na soq daan na Petit daa forcé soq daan na Sokh daan na. Sokh Petit Lo. maam jaara loolu yaa ko sañ a loo ndeysaan Petit Lo ak ñu ngi noonu. saan ñu ngi noonu. Petit Lo ak Sokh. ndeysaan saan daan na. Petit Lo daa daw jël ko pakete ko di ko forcer Petit Lo daa daw soq forcer ko soq suruxal ko Ibrahima kar ko foofu day ñëw de kaay soq soq kaay kaay soq ndeysaan combat la bu neex ñaari xale ñoom ñaar ndeysaan soqa ngi noonu di wër